wàllum justice gis neen euh, président de la république euh, Macky Sall euh, indi chamboulement ci conseil supérieur de la magistrature ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gueye nga xam ne mun nañoo wax ne ci juróom-ñaari at yi nga xam ne toog na ko ci bopp institution boobu bokk na magistrat bi nga xam ne moom ne di gën a critiquer fii Sénégal fu mu toll nii kii di le magistrat Hamidou Diouf moo ko remplacé mais am na aussi beneen mutation boo xam ne sox jaaxal na aussi sénégalais yi pour ñëpp jàpp ne dafa nekk benn sanction bu moom moom bi nga xam ne mooy euh, bu le juge Téliko bon jàngat ngay def ci chamboulement bi nga xam ne am na au de la magistrature est-ce que jàpp ne par rapport ak euh, nouvelle tête yi nga xam ne am nañ ko fa euh, li nga xam ne mooy justice sénégalaise dina gën dina dox si ñi nga xam ne yéen noonu noonu ngeen ko bëggee walla sax muy def liggéeyam nu mu waree. non rien ne va changer. Ah, absolument rien ne changera. xam nga bu ñu ne la justice a des problèmes c'est une justice à deux vitesses yoon mi ngi jeng euh, justice bi ku ma am ndey ku ma amul ndey nga ñëw changer benn nit teg beneen nit. tu ne règles pas le problème. mais cette personne a été longuement longtemps critiquée hein, parce que bu ñu jàppee ne la. Euh, mais du man je ne m'attarde pas sur la personne de Bassirou Gueye. Uh-huh. je m'attarde sur le fait que dindi une personne teg une autre personne taxut suñu justice bi baax loolu laa lay wax. Uh-huh. tant que ce système reste le même et que le procureur a toutes ses prérogatives parquet jox ko ko parquet parquet doole bi parquet am tant que mi nekk fii ci réew mi injustice fii lay sax tant que il est nommé par le président injustice fii lay sax kon coppi ab doomu adama la rek teg beneen doomu aadama pour mu wéyal liggéeyu beneen wéyal doo liggéeyu doomu aadama boobee peut-être que politiquement Bassirou s'est fait tellement lyncher que Macky dit ok maintenant xaaral je calme le jeu j'amène une autre une autre personne un autre visage léegi un autre visage pour prendre un peu un répit ci mhm. ay attaques contre notre justice c'est peut-être cette lecture que moi j'en ferai mhm. mais gëw ma ne nit ki ñuy indi bees na changer quoi que ce soit amul il changera rien mhm. d'ailleurs parce que en réalité le procureur au Sénégal ce n'est que de nom c'est un fauteuil parce que le procureur dépend de la chancellerie Donc, c'est le président de la République. Le seul procureur, c'est le président de la République. Donc, il ne doit plus siéger, selon mais, vous Mais il faut siéger. Mais pourquoi les magistrats ont besoin de babysitter Les magistrats, ils n'ont pas besoin de babysitter. Mais ça, comment est-ce qu'on peut parler de démocratie alors que l'exécutif préside le Conseil suprême de la deuxième institution la plus forte, qui est la justice mm -hmm. Non mais attends, bon sens le laaj. Mhm. Laaj nga jàng jàng am xaraña ah. mhm. dañ ne justice indépendante lañ bëgg justice pour mu indépendante il faut moomal boppam demal boppam. Mhm. mais ki nga xam ne mooy jiite réew mi mooy jiite ñoom seen waxtaan te te mooy tabb waaw bu fekkee ki jiite rek mooy tabb est-ce que foofu mun na am indépendance. Mhm. ko neex lay tabb di. Mhm. quand on vient quand on en vient au poste du doyen des juges. xaw ma ki ñu tabb bees mënu ma ko waxal dara xamal la gu ko dara mais li ñuy wax rek on le jugera à l'épreuve jox nañ ko dossier benn ci gën a brûlant ci histoire Sénégal. Mm. na xam li mu ciy def dégg naa daal nañ ñu bëri jox nañ leen ko ñu bañ. ce poste là non ñu bëri jox nañ leen le poste ñu bañ. Mm-hmm. moom nangu na ko le dossier Ousmane Sonko Adji saar moom moo koy hérité kon lan la waxante ba hérité. sa poste mais pourquoi le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr wala nekk dossier buy euh, sénégalais euh, bu magistrat yi war a. Ah, dossier bu jur 14 morts la déjà balaa dara xew. Ah. génneel ma beneen dossier ci Sénégal bu jur 14 morts. boo ko après ñu waxtaan. mun naa dem ba suba après boo ko génnee nga waat ma ñu waxtaan. c'est un dossier brûlant c'est une patate très boo xam ne ñemewuñ koo tong-tong seen ay loxo et c'est une affaire très sérieuse Ousmane Sonko il aspire à conquérir ce, ce pays là dafa war a leer sa dossier te warut am par par parloo man dama soxla xam la vérité da nga ko soxla xam keneen daf ko soxla xam mënuñ ko jox n'importe qui mu def ca n'importe quoi. Mm-hmm. il faut que yenn yi arrêté loolu dafa am solo nañ ciy bàyyi xel. mais est-ce que Ousmane Sonko moom euh, jugé wul euh, ba pare ki nga xam ne moo remplacé euh, le jeu ki nga xam ne moo fi nekkoon le le juge Sall nga xam ne ndeysaan yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana parce que moom déjà mu ngi mel ni comme kuy am ñàkk kóoliteef si ki nga xam ne moo remplacé le juge. est-ce que loolu dina faciliter. je euh, pas dégguma dégguma lu mu ci wax mais li ma xam man. laa man li ma mën a wax une conférence de presse par rapport à ça. oui man li xam nga mooy lan. Mhm. mooy que ne kunda rey sa maam foo gisee lu ñuul da ngay daw. Mhm. aujourd'hui képp ku ne wóoluwoo justice bu Sénégal danga am foo ko teg waxoo ko waxu kesew kesew waxoo ko rek sànni ku ko fi wax rek am na foo ko teg ku ko fi waxul rek da nga cee amagut bës. <laughs> et le cas du juge euh, Téliko mhm. ñu bëri jàpp ne le fait que ñu affecté ko Tamba euh, da dañ ko sanctionné est-ce que euh, Sénégalais aussi du ñu bàyyi di stigmatiser les autres régions pourquoi mu war a nekk sanction man jàpp naa ne Tamba Ziguinchor Kolda dañ fa war a yóbbu ay juges ba baax dañ fa war a yóbbu ay avocats yu baax ay députés yu baax ay ay ay docteurs yu baax ay enseignants yu baax lo laa gëm man mhm. gëmu sanction mooy Tamba au contraire sanction mooy fii nii Dakar toog ñu jox la dossier yu brûlants yi nga xam ne dañ la koy dox ba pare sant loolu la ngay def. Ah. loolu mooy sanction. Ah. aujourd'hui sanction weesuut ñu jël dossier bu toll ne Ousmane Sonko Adji Sarr teg ko sa table ne la léegi yow xoolal loo ci def ba pare taxaw di la jox ay ordre loolu mooy sanction man de bu ma bokkoon ci administration bii tey ñu génne ma Dakar ci buuka bi fi xew yëpp yóbbu ma feneen fu ma amee jàmm. man dañ maa defal dañ ma defal dañ ma defal teraanga loolu laa ko jugé mm-hmm. donc. Tamba mu nekk sanction Tamba bokk Sénégal. Tamba Sénégal la bokk di. au contraire Tamba dañ fa war a yóbbu aussi de bons juges. c'est vrai ñu justice parce que foofu am na injustice. aussi mm-hmm. am na beneen dëkk am na beneen dëkk am na beneen dëkk non il faut qu'on arrête avec ça. Mm-hmm. les fonctionnaires il faut ñu bàyyi seen wax boobu ay dañ ma sanctionné yóbbu ma dans les villes non attendez ñun aussi les villes aussi xanaa régions aussi on a besoin de bons juges de bons médecins il faut que ces fonctionnaires arrêtent de dire ça ah, ah. Euh, Thiat ñu desandi léegi nag si justice wax euh, carrément mbir bi nga xam ne euh, soxal na Sénégalais yu bëri rawatina le mouvement Y'en a marre l'affaire Kilifeu Simon nga xam ne dañ leen tudd rek si wàllum passeport diplomatique nga xam ne gis neen mbir mi ba tranché posture Y'en ñu bëri sa jàppoon ne Y'en a marre dafa euh, lâché ki nga xam ne mooy euh, kilifa euh, si mbir mi mais dañoo gis après ba dossier bi commencé suivre son cours ak chef d'accusation yi nga xam ne teg nañ ko si ndoddum kilifa ngeen am beneen taxawaay boo xam ne pour ne pas dire ngeen changer posture lan moo wundu changement de posture bi nga xam ne dafay mel ni comme yéen tamit da ngeen ñëw pour défendre ki nga xam ne mooy seen frère d' abord il faut comprendre que ñu mësuñu changer posture. Mm-hmm. on est resté sur le même principe. Mm-hmm. quand cette affaire a éclaté on a dit clairement mm-hmm. que lii na yoon gaaw def liggéey bi ci war. kilifa est présumé innocent. ci liñ koy tuumaal. ba keroog yoon di wax ne def na tant que loolu amut. kenn mënu wax ne il est coupable kon. na yoon gaaw pour mettre yoon à kilifa ci boppam moo njëkk a génn ñun tamit ñu nangul ko génnam toog di observer parce que dañoo bëgg sénégalais yi yëpp bàyyi seen xel ne l'histoire retienne dañoo buggoon ko l'histoire retienne que ñun bi mu nekkee ku bokk ci ñun dañ cee tëddee njaaxaanaay mhm. justement pour yi nii nga wax tey mhm. nit ne ah Y'en a marre de tëddeewul njaaxaanaay mhm. làqu nañ doom dóor doom defuñ ko lu tax tey ma mën a toog fii di wax lu ma neex ci dossier bu ma neex ci mim réew c'est parce que bii ma amee man sama propre dossier boo xam ne sama biir la laal mhm. dama génn mettre la justice à l'aise pour mu mun a def liggéeyam mhm. mais malheureusement liñ ñu constaté mooy ay manquement ci suñu justice on peut pas fonder des poursuites ci une collecte de preuves déloyales. Mmh. C'est le premier, c'est la première infraction dans ce dossier. La première infraction, c'est de fonder ces preuves, mmh. fonder, fonder euh, ces poursuites sur des preuves yoo xamante ne dañ ko am déloyalement. Mm-hmm. parce que suñu suñu loi moo ko wax muy premier tooñ boo xam ne tooñ nañ ko kilifa. Mm-hmm. parce que faut pas que ngeen fàtte Y'en a marre a fait son sont communiquées après la sortie des vidéos, mm -hmm. mais pas après l'arrestation de Kilifo. Il faut que Gaïdi Baye l'ignoire. C'est vrai. Le communiqué est sorti après les vidéos, mais pas après l'arrestation. Il faut que ni nous baye xel l'ignoire. Buñ ko arrêté, dañu xey dem assister def ci la ca war top ko minute par minute pour xam ce dossier naka la ko gaay di jëlé en en compte. Ci lañ constater manquement yi am yëpp. justice ñu ci jéngee yëpp liñ ci dawul yépp muy yoon. ñu woo la sur une base boo xamante ne nii vidéo bi ñu la bi. collecte et diffusion de données à caractère personnel la. Mhm. ñu bëgg fonde ñoom seen ay poursuites alors que xam nañ ne. c' est déloyal baaxul. Mhm. xam nañ ne que est contraire ak li justice bu Sénégal di wax. ñu téye fa l' la ay waxtu xam ne la ngay wax. ca wax ca oto ba la yem dix amul benn démarche amul benn affaire boo ci def amul leneen foo ci maanaam eggul feneen furul ci oto ba la yem. Mm-hmm. ñu ne la kon yow escroc nga escroc boo xam ne kenn porté wu la